bi ñoo ngi lay gërëm ci waxtaan bi ñun li ñuy defe naa ni li nga wax yépp leer na benn tomb bi nga xam ne moom laa ciy laaj rek loolu nga wax ci wax dëgg yàlla bari na ñoo xam ne dañ koy def ci wàllu ñaan li nga wax ci ñaan masalan bu ñuy ñe nga ñaanal nit teg ko ni da nga may jox njàngam ma soog laa ñaanal yooyu defe naa ni bari na lool ñu koy jëfandikoo e, man nag ma am ci laaj boo xam ni moom laay laaj masalan koo xam ne léegi moom am na yu muy jëfandikoo yu mel noonu te moom yooyu muy jëfandikoo nitu yàlla bu wóor bu am xam-xam bu wóor moo ko jël jox ko ko mu ni ko nangam nga koy weexiloo mu koy jëfandikoo kom noonu te mu koy gis mu nekk loo xam ne dañ koy doon nawante ñu xam ko ci seen waaso nit ñi di leen ci fekk loolu daal moom laa doon laaj te ndax ñu yooyu dañ ci amee ngeen jéggal ma waaw maa ngi tàmbalee ci kii ñaan kese te àddugul ci yow kii ñaan sax maanaam am na lu mu sañ laaj mooy coonoom ndax nit ki moom moom coonoom bu fekkee ne def ci fanaan du sikkar sañ naa laaj xaqi li mu sikkar bu dee nangu ak budul nangu lépp ndax coonom rek la laaj yàllaa xam nangu tur nag sikkar tur yàlla nag wala liggéey ko dama wax ne li ko téere waxe dafa am ñaar al isnul am ak al isnul ak sikkar yinam al isnul am mooy ni su borom diglee tudd yàlla ci alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hadis yu bari wadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wadkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikran li yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko laajee ana lu gën ci jaamu yàlla mu ne an laa yazaal lisaanuka ratban bi zikrillah fa toll na na sa lamiñ di bañ a gëj a tudd yàlla xam ne loolu al ismul am la jullit bu nekk sañu loo aajowoo di ko laaj kenn sañ nga cee sax di ko def tur nga xam ne nag secret la nga xam ne borom daf koy daf koo liggéey liggéey ba jot secret ba damay wax ne toujours ma di ko misaale ne ki nga xam ne dafa am suuf suñu mën a bay kenn ruujagu ko nga ñëw ñaan ko tool tool bi mu la jox yow yaay ruuj yaay xaar ba mu taw yaay ji yaay bay yaay góob yaay def lépp ki nga xam ne def na loolu lépp ba am cereem nga ñëw ñaan ko mucc bi cere jox la cooro yooyu yëpp dootu la ci fekk ndax kooku li mu la jox moom moo ko moom dafa sonn ba àgg ca bu fekkee ne nit ki dem na ba àgg ci wóolu ne moom lii bu ko ñaanee rek mu nangu jafe na waaye bu fekkee ne wóolu ne bu ko ñaanee rek mu nangu sañ naa waxanteeg ki nga xam ne ndax foofu itam yu bari ci la nekk ki ngay ki ngay ki ngay ñaanal man kat li ma am wóolu li ma amee wóolu naa ko bu la doyee nag ngam nga may jox du ma ko mën a def ci lu ëpp loolu ndax dafa metti liggéey la loola le mu am yaakaar ci nga defal ko lee du caa génn ne dama lay jox lii ngir la ma bëgg nga jox ma ko ndax yàllaa ko amee waaye kii ñaan te wóolu li muy ñaan moom ba mu doy ko bu ko waxee ki nga xam ne moom la digaaleel ni mu ko wóoloo xañ na koo laaj li nga xam ne mooy tax mu ma def ko nangam daal mooy tax ma mën laa defal nangam loolu moom nit ki sañ na ko bu ko defee ndax tur yàlla ah, ñi nga xam ne jël jëfandikoo nañu pour yàlla walla ñu liggéey ko ñëpp xam nañ mbiri pour yàlla pour yàlla moom lu ama ama am doole la dañuy wax ne ñaan moom amul lu mu mënul jaam bi rek na bàyyi xel ci ne jaam la day ñaan buñ ko joxoon ku nit kun sax day indi beneen wax ndax dégg naa ñu naan euh, kun yàlla rek a ko jagoo de kun mënu ko am tont naa ko ba tàyyi ci ay waxtaan may leen gàtt àll wala ak gàtt xel ndax melo yi suñu borom yépp ci alxuraan mel nañ ko jaam ñi ndax wax ndax nañ tax nañu bokk buñ ne allahu azizun ndax izzatullahi bokk ak izzatu beneen doomu aadama ndax alquran nee na fa lillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminina ndax izza yooyu ñoo ñoo tollooy daraja déedéet ndax buñ ne suñu borom bokk na ci ay turam sabuurun muñaakoon la te doomu aadama bi daañu ko wax ne mu muñaakoon la ndax mu muñam gi ñëroon naag muñu suñu borom la benn sore nañu noonu la ku ni doomu aadama bi kunam ji mu amee wuuteeg ku ni suñu borom tabaraka wa taala mboolem turi suñu borom yi nga gis ci alquran yëpp maanaama la muy tekki doomu adama daf koy meloo waaye taxul ñu bokk dara wala ñu ni nga xam ne dañuy wax ne ajjana bu ñuy misaal xéewal yi yi ñuy tudd bi nga xam ne mooy yi ñu xam ci adduna niroowul ak ya ca ajjana dara lu dul tur wi tur rek la ñu bokk ñu ko sidna Abdullah ibn Abbas waxe kon dégg moom la ñu bari di jaxase ñàkk dégg mooy am na suñu bari ñoo xam ne dañu naan takk gàllaaj takk téere araam na xadis di leen nax mooy man àllaqa tamimatan faqad kafara mooy li ma waxoon sànq naan aaya ji da ngay xam lu ko tax wàcc ak lu xewoon xadis ci boppam lu jafe fànn gu jafe-jafe la du caa génn ngay fab sayxul Buxaari wala sayxul Muslim mu wóor leen xadis bu ci nekk rek wér na nga fekk ci dara rek dal ne nii déedéet dangaa war a xam circonstance yi ak ndax am na beneen bu ñëw bu folli boobu wala déet te fekk wéroon na nga war a xam lu taxoon ñu wax ko ak fu mu dalee fu mu yem tamima li taxoon ñu wax tamima lañ ko tudde woon yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñëwee ci euh, Makka indi lislaam daf fekkoon benn état d'esprit boo xam ne moom la arab yi amoon daan jaamu xërëm di yett ci seen loxo wala ñuy tabax ci seen loxo wala ñuy tëgg ci weñ ay melow doomu aadama def ko ay yàlla di ko jaamu bu ñuy tukki sax yor ci benn di ko raay bu ñu xëyee ñu tu li ñuy wax al al azlam benn xërëm boo xam ne dafa taxaw mais amee melay doomu aadama ñetti bant yoo xam ne bii dañ ci bind al amir bii ñu bind ci al naahi bii ñu bind ci al mutarabbis boo tourné mu wëndeelu bant bu wadd nga xool bu fekkee ne an naahi lañ ci bind mooy tere nañ la di ngay def bu dee tukki bul dem loo mën a def yi doo ko defi keroog bu fekkente ne al al la boo ko ubbee seet ñu bind ci al aada nga xam ne moo lay digal demal doxi yoon wi dana baax fekkee ne da nga ubbi muy al nga xam ne mooy muñal bu ko bul dem bii jamono na nga nit ba beneen yoon yooyu yëpp ñu gëmoon ko ñu gëmoon ne sàllu cooli ku ko takk da nga am wërsëg gajaru lëg ku ko takk dana la musal gëm de bant bu bokk ci la yu yooyu ñu gëmoon yëpp moom la ñu tudde woon tamima bu fekkee ne nit ki jàng na littérature arabe bu baax dana gis yooyu yëpp yooyu nag bi alquran ñëwee ni mu dindee xem yooyu ñu doon jaamu dindee ko esprit yooyu ñu jàpp ne biddiw sàngam moo yi tawal hadis boobu ñëw ne man allaqa tamimatan faqad kafara tamima mooy yooyu ñu daal takk waaye nit ki nga xam ne nee na amul dara lu mën a def wala mu mën a lor wala mu mën a jariñ lu dul yàlla gisul yàlla ba di ko fab di ko takk mu fab waxi suñu borom ji tabaraka wa taala wala turu yàlla wi takk ko risaala mi gën a jege nañ ko seet loolu luñ ko tuddee xirz wala taawil tudduñ ko tamima dañoo juum njuumte lu métti teg léegi bu ñu seetoon sax bu ñu jàngul sax bu ñu seetoon ne mag ñi fi nekkoon nga xam ne seen dund gépp dañ ko jeexaloon ci jàng lislaam ak xam ko ak wut ko ñoom ñépp dañ ko daan def di gis ñu koy def te mosuñ see wax dara ndax xam nañ ne lu dagan la naar yi tay rek di ñu bëgg duggal suñu bopp naan tak gaa laaj aram naan ñaan ci barke bi aram na te teguñu ko fenn duñu wone benn hadis wala benn ay alquran bu ko dindi li ñu wax naan alquran nanguwul gan l'islam it nanguwul gan lu fi amul woon ñu jekk ba tey ñu bëgg ñu koo indil duñu ko nangu de duñu ko nangu ndax ñooñu même ñoom ñëpp buñ ci àndoon itam ñu wan leen lu wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu